Grand Théâtre point TV ñu ngi leen di saaraat bu baax a baax di leen bëggee tey nag mu doon bis boo xam ne ni bis bu la fii ci stade Iba Mar Diop kan moo ñu fi woo Fallou Ndiaye lamb ji nga xam ne dafa dox si te ñaari espoir Ada Fass Bébé Bismi nee naa leen tey jii nii la Iba Mar Diop di tëj tey jii la ñuy tëj lamb ji fii ci stade Iba Mar Diop ñaari ndaanaan di fi bëri nag Bismi xale Cambérène bi ak Ada Fass bi nga xam ne nii su jógee Fass jóg waaye Bouba tey fi ma génnati Ndiogo Colobane moo fi jaar moo nay moo frère borom Colobane toujours Ndiogo Colobane encore Ndiogo Colobane jëlal fi ma Ndiogo Colobane génnee naa ba du tamit xol waa bëjë rek gis ngeen naay gi gis ngeen jean bi gis ngeen pull bi dem leen say doxo gaaw foo dem ci Colobane dañ Ndiogo Colobane rek dañ la koy won waaye ay ca sama gars yi dañuy dem dinañ leen won tuus dinañ leen won cumukaay mbëri mbëri bala ñoo bëre dina ngeen woon tey jii lan la ñuy wax parce que si biir géew bi balaa géew bi am na lu cay xew waaye si biir géew bi nee naa la dafay xew dama leen di ko wax ngeen di ko gis mag yéen la ba du 100 pour cent découverte lay doon ay ca ñu dem Bouba nga xay wone maa la ko mel Lac Rose sango waaw ah. daaw naa la ziar bu baax. ji ñu gëjoon laa gis tey Ada Fass yëkkati la lu xew. waaw Ada Fass dafa nekk dafa nekk koo xamante ni vraiment suma rakk la suma lépp la mun naa ne Ada Fass sama dom la Ada lépp lu muy def dina ma si laaj sama xalaat c'est vrai écurie Fass naa nekk mais écurie Fass ak Fass benn benn la Ada nag tey bisam bi sama bis la. ci jàmm ak salaam di ko ñaanal yàlla may ko ndam Ada dom la joo xam ne neex naa ñaanal parce que xol day rafet te bëgg nañ ko. man mii di wax ak yow nii may entraîneur am di bàyyam te ku sopp laa li koy ñaanal rek mooy yàlla may ko ndam a maa liggéey na. waaw maa ko liggéeyal maa ko liggéeyal sama bopp maa ko xool xam ne war naa mën a bokk ci làmb ji quoi merci beaucoup. mais mbër mi mais n mi tey nga jox waa Fass yëpp jógaat lan nga ji waa Fass. aada sa relation ak nga wax ma tey

waa ñu dem Serigne Bébé Bismi. Ada Fass a ngi noonu di safante ak supporter yi waa Fass a ngi noonu Ada Fass jóge si combat bu am solo mobilisé waat lii. mais moom état de forme bi lan la. ah waaw sant yàlla rek liggéey rek toog di xaar yaakamti wuñ si dara. ba léegi gars yi ñu ngi wax rek di bàyyi lu xew. waa ci adversaire lay desee rek mais xam du yàqoo ci ñun. daxal gars yi mooy daaw dañoo gisal beneen benn état de forme ren ñu gisal beneen état de forme liggéey bi lan la mobile ak foo bëgg dem waaw mais dara am gëm-gëm suñu bopp am gëm-gëm ne waruñu ñoo bett parce que mooy suñu liggéey buñ la wooyee nga naan c'est-à-dire rek mooy pareekoo te nee naa la fii daf maa namm stade bu melee nii amateur seen xel ci kan lay fii rek baaxuma fii barke yonent bi waa Grand naa tay dañoo bind ay banderole dañoo namm combat mobile si si si si rek du grand bi rek amateur yeeg ñëpp dañ koy déclaré mobile mobil mobile mobile mais léegi yàggatul dara bu soobee yàlla ngeen gis ñu fii ñu tooyal xaftaan bi. ñu ngi démarché combat. ñu ngi démarché. yaakaar nañu ñu ngi wax nag bëri na bëri na mais ñu ngi toog di déglu rek quoi. jaajëf mbër jaajëf. incha allah yal na ko ñu gis ne que parcelle Cambérène daanaka yéen ñëpp léegi da ngeen booloo loolu la. waaw ñun ñoo dëkk ñun ñoo dëkk ñëpp benn lañ samay rakk lañ rek niñ may taxawoo noonu laa ñuy taxawoo mais eh, bis ma maa nu mu waajee dal na sa xel. waaw dal na sama xel xam nga am na yoo xam bind la ko waa si nit yombul dindi il faut que koy dindi mais liggéey na waaw. foo toll. wàccaay rek ñi ma war a bëreel. ñi ma war a bëreel rek. de Fass rek xam nañu ñun ay doomu Medina lañu dañoo war a am ndam barke Serigne Touba. sa diggante ak Ada Fass lan la. non sama borom baax lu ma xew la day ñëw quoi xam dama amoon problème tànk maa woon àll ba tey moo tax ñëw moo pompé mais Ada suñu Ada la suñu lépp la. du woo du nuyu mbëru Medina yëpp ku si mel ni ñoom Forza 2 képp kuy mbëru Medina rek maa lay nuyu. suba dama ñëw suba. non asa muy loolu maa ngi waaj am naa grand combat. yaakaar la man ak frère bu gën a yow. Ah, Ah, mois de mars la. lay wax waa Medina. waa Medina ñooy fii rek. ñu si kaw sa combat. waaw di leen rek nañ ñëw jàpp si. waa tey jaaral li di nuyu sama grand Ndiogu. la génnee Mor Mor moo ma waaw Afia. ñoo ndiroo dal di ko ñaanal jàmm di ñaanal jàmm lu ngay def ni ba si kanam. ba na am ay télé ba pare na waaw mi ngi pare ñi ngi si kaw moom ñi ngi waaj bu baax xam nga di woo waa Medina ñëpp pour ñoom ñëpp jaaw si xam nga waaw seen doom la ñëpp nañ ko ñëw jàppale da xam ne champion la. nga waroon bëri keroog bëri woo. sa adversaire blessé. loo. combat bi réglé na la 15 mars la arène nationale. jour combat soxoo gàmmu gi ñoo bëri spécial bi. pare nga waaw pare naa bu yàgg. Ah. waaw. ma yëg ak ñi. non pare na yéen wuñu gàlle. amagul combat. Moussa Ndoye dañoo ñu bëri la moo rànd rek. Ah. waaw. waaw aaye ah, waaw yow abaay mbër yaa ngi noonu Bouba Konia deux moo sunu càmmoñ Dacia moo jàkkaarloo ak ñun Dacia da nga xaw a sàcc doole nag xaw ma doole la xaw ma ah. arbitre sifflé na arbitre sifflé waat na Viadas à droite Cogna de gauche ñu ngi lewtoo mi-temps ñaari mbër yaa ngi noonu jàppante ba tey Vieux Dacia Kogna 2 lamb ji mënut yomb tey mais nag ba léegi sànq ba léegi Kogna 2 mooy wuta bëre de eh Kogna 2 kii ngeen doogul bëre. foo jëm. ma dem ma samay morom. grand combat bi. grand combat bi. na ma on dirait fu laa bëgg a bëre on dirait waaw. bu baax gën ak Gueule ak Fass Dakar mu yàgg loolu Ndiaye way ñi ñoo ànd ak Ada Fass déggal li way ñoo ànd ak Ada

lamb sport la bo xamanteni dafa wara bolé sport bu noble la mais xam nga li dafa ñaan mais Bébé Bismi limu def légui waru ko def yek turbine daw ci kaw turbine bi bëgg wër xeyna amna lu mu bëgg nag xeyna tétal la ci mom waaye du tétal bu rafet bu dé tétal xam nga li ma la parce que dafa am lo xamé xol niñ def fi presse bi légui légui ñaaw ñaaw sanante canette bi. li day yak lamb li da rafet lu won ko quoi franchement man gisoo fi ma toogoon damaa jóg daw di ngir rawale sama bop lamb du violence. lamb ànd la bokku nday bokku baay yéen ñaari mbëri yéenay mayante xaalis nañ ko rafetal bu dara ñaaw lamb ji nga xam ne ni tey moom mooy dernière lamb ji nga xam ne nii fii lañ koy tegee si stade Diop Iba Mar Diop lamb ji deuxième arène nationale la ba suba sa drapeau loo gisee loolu waaw loolu di ci am euh, mbégte ak contentement bu mag a mag parce que yàlla dafa dogal ne dañ doon jooy stade dañ doon jooy fu nu bëree dañ doon jooy arène tey état bi ñëw indil ñu arène nationale mu nekk arène boo xamante ni danoo jël milliards yu bari def ci mun ñu ko tabax ba pare ngir làmb tabax ko ba pare ngir axlu làmb ngir tabax ko ba pare ngir bu combat amee ñu war ko yóbbu foofu ñu tëj ko stade bi kon amul sens léegi nag désormais tey moom mooy dernière làmb bi nga xamante ne moom mooy am fii stade Iba Mar Diop ci lutte avec frappe bi bu weesoo loolu fii suba drapeau ministre Matar Ba ci lutte simple bi mooy lamb jeex na fii ci stade Iba Mar Diop désormais léegi combat yëpp arène nationale. lay amee bu ñu dem. bii. bii. Babou lay kaas. Babou nee na bëre warul am. lan moo tax bëre warul am dinañ ko xalaat. ngi noonu di leen door dooraat dëkk Cambérène avertissement da koo sotti benn Ada Fass a ngi noonu dëkk Médina Bébé pare nga Ada pare arrêt suuf leen a génn seen diggante samedi 11 janvier 2019 stade Iba Mar Diop Soxna Fallou Ndiaye Ndiaye production Ada Fass Fass Benno Bébé Bismi Cambérène ca Dóor Dóoraat Leewtoo Ada Fass à gauche Bébé à tent bopp di leen fàttali Ada Fass moo fi bëree Yiri Do waaw moom Ada Fass moo fi bëree Farbu moom Ada moo fi bëree Caatu Paate moom Ada moo fi bëree Dormal Raoul Kara moo fi bëree Caatu moo fi bëree Ondu Lafu Bébé Bismi moo fi bëree Alliance Biram Cheikh Super Jamono Boy Robson Bambey jàppante loxo daw nan daje daw nan daje Bébé Bismi Ada Fass jàppante nan te de wure ci bëre Ada door na Bébé Bismi Ada ko kal dooraat na Ada ko dooraat Bébé Bismi Ada Fass ña wure ci bëre ana xew Bébé Bismi Ada Fass jàppante Bébé Bismi ngeen bu vert bi Ada Fass ngeen bu weex bi Ada dooraat na jàppante loxo Ada jéem na ko manuel Ada bëgg na ko tibb bébé eh laa ilaha illallah oho door na ko Ada bu dal waaw waaw borom te Grand Dakar Saal di nga yee Ada Fass bébé ñu ngi xeex na dooraat. balaa keneen ko bañ. eh Bébé Bismi Ada Fass ñanga cog plaqué nañ ko daan na ko la ilaha illallah Ada Fass daan na Bébé Bismi Ada Fass daan na réew mi Bébé Bismi nee na yàqu naa Ada Fass daan na Bébé Bismi allahu akbar xës daal yaay ji ne làmb ji waxal nga ma Ada Fass dina ko daan xës daal bàyyi naa la xës daal yaay gisaana làmb ji